considérons que dans ce contexte particulier, puisque nous parlons même de dissolution d'institutions, il est inacceptable que des acteurs politiques soient dans des discussions pour créer d'autres institutions, simplement pour donner des sucettes à des, des acteurs politiques, et cette fois-ci de l'opposition. Il est indécent de parler de statut de chef de l'opposition avec un budget. Certains parlent de 2, 2 milliards, je ne sais pas si c'est vrai, mais un député l'a affirmé publiquement je ne sais pas ce qu'il en est. Mais il est indécent aujourd'hui. C'est quoi un chef de l'opposition Il est chef de qui ou de quoi Moi, personne n'est mon chef dans l'opposition. La preuve, ma démarche n'est même pas la même que, que, que, que beaucoup d'opposants. Je ne demande d'autorisation à personne et personne ne parle à mon nom. Et personne ne parlera jamais à mon nom. Donc, chef de l'opposition, il est chef de quoi De l'opposition de Macky Sall ou de l'opposition Donc, il est indécent aujourd'hui de parler de budget pour un chef de l'opposition. Troisièmement, nous considérons que la décence interdit dans ce pays que des gens osent parler de troisième mandat. Tous ceux qui parlent de troisième mandat méritent la prison. Parce que c'est des pyromanes. Je ne parle même pas de l'aspect constitutionnel. Nul ne peut faire deux mandats consécutifs, c'est du français. nul ne peut faire deux mandats consécutifs kenn mënul toftal ñaari mandat toftal ah, mais loolu jeexal na wax ji mais je ne parle même pas de ça je dis si on confie un pays à quelqu'un il fait sept ans avec zéro bilan presque à part emprisonner et radier des opposants zéro bilan pas de bilan en création d'emploi pas de bilan en assainissement pas de bilan en santé demandez combien d'hôpitaux ont été construits Combien d'universités ont été construites Rien. L'université virtuelle, c'est pire, pire que virtuel, ça ne marche pas. Sin Saloum, on n'en parle pas. Amadou Maftarbo, rien. Vous ne pouvez pas nous mettre un bilan. Vous êtes à trois ans de la fin de votre mandat. Vous avez, vous avez fait 5 ans plus 2 ans, ça fait 7 ans, 7 ans plus 2, 9 ans déjà. Il vous reste ans. Aucun bilan et les gens osent parler de troisième mandat dans ce pays. Parce que ces gens, que le pays leur appartient ou bien ils l'ont hérité de leurs parents ou je ne sais quoi. tout les Sénégalais. Et on le dit à Macky Sall de, de l'élection présidentielle de 2024, il ne sera plus président du Sénégal. Ça, qui le tienne pour dit. Et après, il va et tous ceux qui de lui, ouais, il ne faut pas faire ce discours, il faut le rassurer. Il faut le rassurer. Un jour, j'étais avec le président Blaywat, il me dit, euh, un jour j'étais à Versailles, j'étais entendu dire, il sera le premier président qui va en prison. J'ai dit, il ne le dis plus. Il faut poser le débat, il faut, il faut rassurer, parce que celui qui a le pouvoir, il a les moyens, il peut s'attaquer à vous, etc. Je le remercie pour ce conseil, très sage. Mais sur ce plan, je ne suis pas très sage. Je considère qu'on n'a aucune garantie à donner à personne. Quand on a s'est fatigué pour avoir le pouvoir, en promettant moins et merveilles, on arrive, on fait pire que ce que les Sénégalais ont combattu. Corruption sur corruption, escroquerie, détournement des deniers publics, vendage de, nos, de toutes nos ressources aux intérêts étrangers. Il faut accepter après de présenter euh, des comptes Si c'est ça qui doit faire qu'il s'agrippe, il va s'agripper, mais il nous trouvera ici. Il ne sera plus président de la République, Inch'Allah, en 2024. Parce que ce pays ne l'acceptera pas. On ne peut pas continuer avec ce monsieur-là. Et je tiens à dire aux Sénégalais que nous ne sommes nous dans aucune discussion, aucun contact. Nous par rien concernant Macky Sall et son groupe. Nous sommes dans un combat, opposition ferme, radicale, contre un système qui a bousillé ce pays-là et ce nous voulons l'enlever d'ici en 2024 au plus tard. Mais en attendant, il y aura des échéances électoraux, électorales du mois Nous exigeons que la, le calendrier républicain soit respecté. Qu'est-ce que les maires ont fait dans les différentes localités On a repoussé, repoussé, repoussé. Jusqu'à quand Il faut qu'en mars ou avril 2021, les élections locales se tiennent. Et l'argument de l'audit du fichier ne peut pas justifier un report. C'est l'opposition qui a demandé l'audit. On commence l'audit. Si l'audit se termine avant, si ce n'est pas le cas, on va avec ce fichier. Parce qu'avec ce fichier, Maki sera battu. Nous exigeons contre la tenue à date des élections locales. La tenue à date de, des élections législatives de 2022. Parce qu'on ne peut pas admettre un député élu pendant cinq ans à applaudir à l'Assemblée, à la fin du mandat, on dit on va mettre ans de plus. Sur quelle base Parce que l'objectif, une fois, et je tiens à le dire au peuple, une fois qu'on accepte un seul report, c'est-à-dire le premier, comprenez que les autres sont reportés. Et dans le cadre du dialogue politique, les magouilles, c'est de dire rationalisons les élections. On va faire deux élections par année, ce qui fait qu'on aura deux ans, quatre élections, parce qu'on ne Nous, nous disons oui, mais à partir de 2024, après l'élection présidentielle, on pourra rationaliser. Mais il n'est pas question de toucher au calendrier